doonte ba ñuy dëkk tënk tënk xalaat bi mun na am man ma amoon beneen opinion waaye bu ñu tënkee ni lii la bu ñu génnee ñu am solidarité bu mat sëkk ba pare nag am na ko ko wax doon bouclier doon bouclier pour défendre le projet parce que yàqkat yi tey seen xol neexul waaye wala ñàkk nañu benn bataille mais taxul ñu déposer les armes te su ngeen seetee li xew fan rek ci ay fake news ak ay essai féewale di ngeen xam ni bàyyeeku te ñu ngi xaar premier fakastal rek pour engagé ci loolu loolu nag dañuy xaar de chacun et de chacune d'entre ñu doon un bouclier bu solide am solidarité bu mat sëkk ba mun a am les résultat yi nga xam ne moom la ñu diglanteeg foofu Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant leen féliciter une fois de plus pour cette victoire qui est victoire waaye yéen fàttali li ni ndam amagul en réalité et que je ne dis même pas du premier mandat parce que réew lu koy transformer durablement du lu ñuy liggéey ci benn fan waaye foofu au fur et à mesure la ñuy dem ci la ñuy xam ndax ñu ngi ci yoonu ndam am déet ñu ngi leen di gërëm leen sant salaamaaleykum. Merci monsieur le Premier ministre donc ginnaaw